Got it. Got it. Zero. So, Champ, Champ, 23, Ham, 26, Ham, 7. Bien. Coach, carga. Bien. ñaaw Come on. ho, ho. Серьезно? Yeah. ma jëm ci àll jump, jump. faut bien les regarder parce que ce sont des références au niveau du Rapido parce que ñoom ñooy pionniers wu Rapido au Sénégal donc seen preuve de patience seen preuve de persévérance seen preuve de courage moo leen indi tey jii ñu ngi ñii di def seen passage du deuxième ak seen seen donc vraiment bravo. donc le diplôme sera remis par Maître Dame Seck avec sa licence. le président de la République au Sénégal par rapport à l'extérieur d'accord donc parce que comme monsieur Mamadou da ngeen di yëg noir deuxième tànn première tànn yëpp dañuy ñëw compétition ak. donc la catégorie moins de 60 kilos donc premier Mahmoud Bari Samado. silence. Traoré a aussi un combat d'exhibition, on appelle Jurasek, Timron, Edouard Gabriel Pierre Amém. Amém. lañ gëmee Mustafa గ్రామ ప్రజల yoon président maire